bay asalaamaaleykum jigéen ñi bi nga xam ni tey dafa jàpp ni bu Nations Unies taxawee ne bësu tey bii daf ko jagleel ñi nga xam ni dañoo taxaw pour ñu bañ a bund xataal jigéen ñi bañ di leen sonal bañ di leen noot mu jàpp ni tey Sénégal daf cee war a jël wàllam bu mu jeex takk fukki fan ak juróom benn yoo xam ni ñun ñëpp dañoo war a taxaw faslu taxaw bu baax a baax ndax loolu mu mun a dañ si àddina bi madame le ministre nos sincères man nag ñett yëfa ba ma moo indi fi tey si ngoon benn bu njëkk dafa fekk ni jigéen laa ni yéen te na ngeen xam ni bépp jigéen muy lu ndaw muy lu tuuti muy lu nëbbu muy lu feeñ mus ngaa dajal lu mel nii ku lay bund xataal wala ku lay suufeel wala ku lay coppati loolu mooy violence contre les beneen bi mooy dama xam liggéey bu rafet bi Ndeye Saly Diop Dieng di def ci biir gouvernement bi ma yaakaar nii ma yaakaar nii balaa góor ñi sax taxaw di ko jàppale ñun ay nawleem jigéen war nañu ñu taxaw di ko jàppale ndax muy wéyal liggéey boobu ñetteel bi nag mooy ñetteel bi mooy man dama fekkee fu président Macky di nekk avocat jigéen ñi fii ci biir Sénégal mais surtout ci bitim réew wax nañ ni tey mu nga Kinshasa Kinshasa mi nga xam ni chef d'état africain yi dañ fa daje pour tey ñu mën a màggal bés bi jàpp nag di mën a def ay jéego yu rëy a te bu fekkee wax dëgg yàlla dañuy wax jéego rek Sénégal ci président Macky def na ay jéego yu rëy mais bi ma gën a fekkee ma seede ko mooy ma ànd ak moom New York 21 septembre assemblée générale des Nations Unies mu taxaw mu wax ak àddina bi yépp def fa discours bu am solo ne man Macky Sall président du Sénégal dama gëm ni fii ak jigéen ñi ñu ngi leen di bundu xataal fii ak xale yu ndaw yu jigéen ñi ñu ngi leen di sonal àddina bi du mës dem ci kanam mu taxaw nag plaidel jigéenu Afrique yépp te boobu ku ne xam na mandat Union africaine am mois de février bi lay tàmbali donc dafa mel ni moom commencé na liggéey bi te ma wax leen ko tey en tant que ministre des affaires étrangères moom li ñu ko jagleel ci mandat am mooy la nutrition ci biir nutrition boobu moom xam na lan mooy wàll jigéen ci loolu moo tax foo ko fekk dafay plaidel jigéen ñi te di ngeen ko gis 2022 incha allah lan lay président Macky Sall di def pour les donc madame le ministre j'étais venue vous encourager. J'étais venue au nom de toutes les femmes dont je fais partie vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire pour les femmes. J'étais venue vous dire, que dans ces 15 jours, dans ces 16 jours devant nous, je sais que vous avez déjà l'engagement auprès de l'UNIFAM, auprès de Madame l'ambassadeur de l'Union africaine, de l'Union européenne, auprès de tous les autres partenaires J'étais venu vous dire à mon nom, au nom de Néné Fatouma Tatal, au nom de tous vos collègues, hommes comme femmes du gouvernement, que nous sommes debout à vos côtés, parce que cette cause des femmes, c'est la cause la plus révolutionnaire que l'humanité peut engager pour son développement. Donc, vive les femmes, vive les femmes dans leur combat, vive les femmes dans leur unité, vive les femmes pour la paix.